njëkk saga yàkkamte xex la te tere nangu fay yombala yi dóor wolof njaay moko lepp mu yokk ne lu ne fang ken du ko jeex ba tax Gana sere martal mi don yu xufu nek di wax ni Dakaractu li mu wax ci walup audition dara mu ci dakar Dakaractu ñoo ko dugal nañ ma ci genné légui rapidement wax na len ko te ñom jot na seen kilifa gi ni légui dara ngeen genné ma ci seen yoy sinon defo len ko suba mo presse bépp wax len ngeen bayyi seen wax yu du dëgg yi parce que mënu leen nek ci kaw ni ñi di leen mrd bu leen nexé na khalifa général na nga bu leen nexé na diou sanga bu leen nexé na diou sanga dégg nga man nag pesum gémmiñ la borom a koy fajal boobu nañ ko seet wicc léegi nii wax naa ne ko ñoom laay wax ak ñoom yëguma ko xaw ma ko lu xew tey mujj naa lem ay kogam waaw moom Gana Messere nag moo demoon wuy ji tey ji ca section des recherches mu di audition bu diir juróomi waxtu ci 11h ci suba ba 16h30 ci ngoon ñu laaj ko nag lu tax mu wedd ci ab vidéo te waayu coronavirus ca Touba moom conférencier Mouride bi waxoon ne ab wax la rek ngir sërëxal Touba moo deltu ginnaaw ci lu gaaw mu tontu ne ñàkk xam dong la woon ndax dafa yaakaaroon ne Covid 19 amul Touba waaye ba mu dégloo njiitu réew mi gis tam itam Khalif xalifa des mourides mu wax ni nag billaay wallaay ci laa xam ne feebar bi am na foofule ca Touba lu nu mel nag dootuma ko waxati sax wax lu mel fa lu mel ba dina amal léegi ay campagne de sensibilisation ngir artu askan wi gën midon saga, nag mi doon saaga Dakaractu mu mel ni kon Dakaractu am na dëgg kon tey jilee ci kawam ndax bépp jibal faw ñu saytu ko ndax ñu amuñ xaar ma yàlla ak kenn moom Gana Massere nag mi ñu waxoon ci ab téléphone démb saa bu ñu ko dina dinañu woo wax ñu li fa ruusee ñun woo nañ ko tey jile ba sonu jëlul téléphone am kon ñu ngi xaar sap woote